si jokkoo bi nga xam ne sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou jokkoo na ko ak njiitu réew mi di président Macky sàll euh, ci li nga xam ne mooy xew-xew bi xew ci réew mi ndax kenn ku nekk xam na li xew ci réew mi ak Sénégal ni mu yëngoo jamono jii ñu bari nag dañuy wax ne kilifa diina yi dañoo war a wax waaye sëriñ Abdou Samad Mbacké Sohaibou ci ay kàddoom moom daat nay xamle ne kilifa diina yi ñoo ngi wax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 ngir ñaari yëpp benn mooy sëriñ bii fi ne di sëriñ Touba nakkal ko fi ma xam xolam ak yéeneem ci bindee fi ak ci taalibe sëriñ Touba yi xamin mbir mi xew fan yii ba indi coow lii la ci wax ak kilifa gi réew mi njiitul réew mi xam ne waxi responsable dëgg la xam gi xam ne njaboot gépp ak njabootam ak fuñ ñu mën a ne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 lu yàlla bind rek na sedd sédd ak yàlla ci mbindeef moomee rawatina nag mbindee doomu aadama doomu aadama da cee raw nga xam ne xat karam naa bani aadam wax yonent bi sallallahu mi ci bokk dafa tax yàlla dafa teral doomu kon nag li gën mooy delloo sa xel bu baax te bañ a déglu ñi nga xam ne waxtu leneen amee day ne ca gannaaw képp day ne ca gannaaw képp di seetaan ak di ree lu ñu dara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 bu seddee ba noppi nag bu ñuy wax ak gone yi door a ak ñoom waaye ñoom la leen naqari ak fi ñu toll ak seeni at ni mu néewee neexuñoo waxal te bàyyiwu ñoo ngi ñaan nag mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ci mbedd yi ñu bàyyi xel ne li ñuy yàq senegal gépp ko bokk ñu xool li ñuy def te ànd ak dal ànd akum xel waaye lépp daal ñu ngi ñaan président mu fex ba jàmm